alhamdulillahi alladi hadaana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana allah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi toogee jataayu Serigne Touba tey ci kaw suuf ataalallahu baqaahu wa ayyadahu wa nasarahu kon ci ndigalam lañ ñëw fii di leen jët kàddu yu bàyyi ko ci moom ci këram gu tedd gii mu nekk ci biir nga xam ne yërëm ko ci coono bee tax waaye dara doy ko ci woon lu may toogal boppam ñëpp gis ko ndax li xew tax muy kàddu yoo xam ne nag mi ngi koy jëmale ci bokk jullit yëpp ak bokk taalibi murid yëpp di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi weesu di gan ak rasulullahi sallallahu alayhi wa te Serigne Touba fonkoon ko lool daa ko dundalal boppam ak jëkk ahiyatu mawlidi bi min asasi ba ci njaareem kon ñi ngi ñaan lim ci daale ci biir jës fu ñëpp jàng ko dégg ko te xam ne mën naa yéwénal suñu mbir ci àdduna ak alaxira la ca dellu kuwaati mooy kàddu yu masaw yëm ci mboolem koo xam ne rek loru nga ci xéewal gi nga xam ne suñu suñ moo ko wàccee ci kaw suuf mooy taw bi waaye rawatina nag ñi dëkk Touba sëriñ bi nee nag képp ku fi dëkk rek te ndox mi laar laal sa kër wala mu laal sa alal wala lu mu mën a doon rek sëriñ bi wax na ne mi ngi lay masawu ci loolu te di ko ànd ak yow bu baax a baax a baax ngir xam ne bu soñoon képp ku dëkk ci dëkk bi rek jàmm nga fi nekke waaye nag nañ xam ne lu baax moo dul yomb te Touba nag moom la Serigne Touba waxoon ne daa waxoon ne ku fi sam xel indiwul saw xel dina fi indi kon xam na ne ñëpp dañoo gàddaay seen i dëkk ngir tumuraanke ak jaaxle ak bëgg dëkk ak Serigne bi kon bu sañoon ku fi dëkk ku ne ci jàmm ga fi nekke ci teraanga rek nga fi nekke waaye yàlla suñ borom ci boppam nag moom ay dogalam te kenn du ko xëccoo moom. mooy seet lu ko soob mu def ko te xam ngeen ne moom moom mii boroom liggéey bii di sëriñ bi xam ngeen nekk na ci Gabon samaaniya xijajin illa xalilan lu jóge juróom-ñetti at muy sottu ki ci ab taw kon loolu ku ci xool rek lu métti métti métti da nga am xolub jëm ko muñ waaye sëriñ bi nag nee na xam na ne taalibe yërmaane jëm leen ëndal mooy la Serigne Touba waxoon rek wala cu maahil xuma mi ba soñoon kenn du fi dikkee njàqare moo tax mi ngi masaw bokki taalib yëpp ci lii xew ànd ñoom ndax lii kat xew-xew la boo xam ne bayuut kenn bayuut kilifa bayuutub taalibe bayuut kenn ñëpp la dal seen ndax kenn ku ne lañ ci yëgal sa bopp mën naa naa mën naa wax ne man mii jot li kàddu yi sax dañ maa mujj jël si oto waaye sama oto sax mënta génn sama kër kon ñëpp la laal laalu ka gën a suufe ba ci gën a ka gën a kawe ñëpp ko yëg mhm. jumaay Tuubaa ji li ko war gis ngeen ni meloon kon mbir la mu wàcc moo xam ne suñ borom nag boo koy ñaan la ma doon wax démb rek te sëñ yàlla boo ko ñaanee la gën a bëgg day seet la gën a bañ boole ci kon nag sëriñ bi nee na taalibe yi xam ne mettit bi ñu nekkee ak tumuraanke gi ñu nekk ak jaaxal gi ñu waaye nag bu ñu xoolee ci jëmmam ak yërmaande jëm ñu indi ëmbal rek nañu wóor ne yàgg-yàgg danañ tàggoog moom kon loolu mi ngi ciy dalal xel ñëpp te li ko ci war fekkoon fekkoon na ko ci waaye da koy gën a dolliwaat kon nañ xam ne sëriñ bi dafa wax ne ci biir loolu nag sëriñ Touba dafa am lu mu digaloon taalibe bi muy digle jumaay Touba ji waxoon ne ku ne na ci joxe ñaar fukk ak juróom-ñett la ma waxoon yi dafa waxoon lii ma leen di digal nag fu waay jëm nag fu yóbbaale mooy lépp lu ngeen bëggati walla lépp lu ngeen sumbati rawat na lu mel ne néegu yàlla bi na ngeen ci góorlu seen kéemtalaay kattan def ca la ngeen la ngeen man ak la ngeen mënut te lu ngeen ca mënut fu ci seen doole yem ngeen dem laxasaayu wuti ko ci anam ko sell te fu ci seen kattan yem ngeen toog xaar fa sa ijaalullahu baada usin yusran daana trikki nag maa ngi leen di wattandikuloo lépp ndimbal loo xam ne bu leen fa yalee seen aajo yi dañ leen xañ seen gor xañ leen seen xajamal seen xañ leen seen jom tilimal seen diine daane loolu nag la jiitu ci la koy maye mooy mënal sa bopp la jiitu ci la koy xañee mooy ñàkk mënal sa bopp mm-hmm. kon taalibe ndigal loolee lañ topp ba raay bi ñëw Touba ndigal la lañ topp ba jumaay Touba ji ñëw ba nëgë ni loolu lay woy moo tax lu mu mën a doon ak lu mën a xew ji suñ biir tam balañ caa toog di xaar kenn nañ ko tàmbalee ci suñ bopp ba fuñ ci mën a yam kuñ ci fekk fekk suñu ca loolaa waral nag sëriñ bi ci yéen maa dem jiyaatu wax na liggéey bii xam na ne nit ñi sonn nañ ndax ndox mi ñi dugg na seen biir kër ñi dugg na seen mbedd bi mënatuñoo jàll mu ne kon yëkkati na ñaar million joxe ko ngir tàmbalee ko nag da ko tàmbalee dox ndax juróomi téeméeri million sax la waroon génne loolu la waxoon da juróomi téeméeri million wala milliard laa war a génne sax joxe ko tàmbalee ko waaye ginnaaw bi ñu ko waxee ne ko na tàmbali rek fu ñu toll mu toll fa ak mu ne kon na joxe ñaat téeméeri million bi mu ko génnee itam ngir bëgg ñu ñu tàmbalee ndimbal teg ko nag ci ñetti daayira yu mag yi nga xam ne ñëpp xam nañ seen taxawaay ci dëkk bi kon sëñ Abibu Cheikh Mamadou Fadil mi nga xam ne moo jiite daayira Touba ci kanam dana jox ndigal sëriñ Abdoul Ahad Mbacké sëñ Abibu bu mu wax ci turam ndax sëriñ bi xam na ne fekkoon na leen ci ñu nekk ca joxoon na leen ci ndigal bi ak waaye ña ngi ci woon kon dafa def génn kuréel goo xam ne ñoom ñett ñii ñoo koy seq Serigne Youssou Diop bu daayira bu Tarqiyyah moom itam mu ànd koog ñoom ndax baat ma ci Serigne bi tegal ma ñoom de lépp lu jëm ci organisation luñ ci bëgg rek mën nañ ko ba ca ñetteel mooy Serigne Abdoul Ahad yàlla def na ma Serigne bi di woo fi ko fekk sax yëgoowuñ bi ma waxtaanee Serigne bi ba noppi mu ne moom kat daa mel ne lu mu noonu sax ko yëkkati waaye dama noonu naa bàyyi ba gis la ba noppi door koo jox door koo woo bi mu ko woowee sama kanam itam laaj ko mooy mu wax ko dama doon laaj si ndigal ba xam lu ma ci war a def xool naa ba gis ne war naa am lu ma juróom-benn fukki millions yoo xam ne dama mënees su ko jëndee ab ceeb ak ak diw séddale ko nit ñi. ñu boole ñetti kuréel yëpp nag mu nekk leen ñoom ñu ñu ñu waxtaan seen bi ba tënk ko sëñ bi moom joxe na xaalis bu noppi waaye ginnaaw bu loolu jàlle it nag ñuy soññ bokkitaal bi murid yëpp ak képp ku bëgg lu baax. te man cee jëf dara lu néew néew bu mu ci xeeb dara bu mu ci yëm dara ndax euh, lottu nit ñi moo toll foofu te nit ñi kat hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min azabin alimin tu'minuuna billahi wa rasulihi wa tujaahiduuna fi sabilillahi bi amwaalikum wa anfusikum kon jihaad ci sa jëmm ak sa àll dara ëpp doole kon sëriñ bi naa mi ngi jigéen taalibe bi yëpp lépp loo leen waaye mën a dimbalee na ko def bum mu ci xeeb dara bum ci yem dara ko am kër ndax xam ngeen ne màggal tuba màggal màggal gi jàll na màggal tuba gi jàll na ndegam màggal gi jàll na nag kër yu bari seen borom néewtuñ fa kon nag rikk waay ña nekk ci ña moom kër yooyu yee lu kër ga rafet rafet buñ ko mën a jël aale ko ngir jëm suñ tuba te xam ne kat yonente ba mu gàddaayee Màkka dem Madina muhaajir ak al ansaar ñëpp xam nañ dem demee dañoo ñii dañoo génn seeni kër joxe kon nag nañ xam ne ku def loola itam daa tabbi ci biir loola kon ku kër goo xam ne tëj nga ko te kenn néew fa war nga ko mën a aale ñaari weer wala ñetti weer bu ko defee mu jëriñ ñëpp eh, ci biir ñoom seeni xalaat it fu ñu leen mën defal ay tànt yoo xam danañ fa mën di nekk ku ku miir sa miir te miir ba da koy denc rek ñu ñu def fa ay ngir nit ñi mën faa ne ndax sëriñ bi ci wàllu boppam moom xalaat na ci. lotissement bi mu jël def ci yoon Touba Belem dana fa jël diir lu yaatu tabax fa ay kër def ko addee Sëriñ Touba mooy kon nit ñi ndax xam na ne am na ci ñoo xam ne tumaranke ne boo leen génnee ci ndox mi ba bi jeexee bu nawet bi desuwaatee fa leen di fekk ndax dañoo dëkk ci xur yoo xam ne lu fu nit war dëkk loolee itam am na ci xalaatu boppam boo xam allah bu bi jàllee wala feeg bi jeex dana ci jublu fa ay kër yu bari def ko addee Sëriñ Touba itam lu ci waay mooy def rek. ngeen xam ne lépp moom lañ koy defal waaye lu ci waay waaye def Sëriñ Tuubaa lañ koy defal te Sëriñ Tuubaa kat waxoon na ne ku ma defal loo man ma defal loolu loo loo mënul ku ma defal loo mënul ma defal la jomb kon nag lu ci waay defal nga xam ne pay ga Sëriñ Tuubaa nga ko seqal kon ñu ngi jeexal foofu kàddu yi di jox Serigne Abibou mu jox Serigne Abdou ñu àggale kàddu yi ci res asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa